internet yu euh, Sen Teranga TV c'est toujours un plaisir di ànd ak yéen seen différentes émissions tey ñu am mbégte kontaan bu baax a baax dalal ki nga xamante ni mooy Françoise Hélène Gaye mi nga xamante ni moo jiite mouvement jubbanti ñëpp xam ko mu nekk républicain j'allais dire ñëpp xam ko ci xeexam di féministe également di faral di xeexal xeex jigéen di xeexal jigéen ci ay combats yu bëri nga xamante ni Sénégal daal dina koy mënee à travers mouvement boobu tey nag ñu am mbégte dalal ko ci émission càmbar a fas yéene waxtaani actualité nii les ziar je lan laay wax ma wax tata wala ma wax Françoise Hélène <laughs> Françoise Hélène maa ngi lay nuyu. <laughs> Mhm. micro bi mhm. taalañu micro bi allez-y le temps que ñuy yaa euh, suñu technicien bi waaw voilà c'est bon acca mhm. Ouzin maa ngi lay fay euh, di la ziar bu Mm-hmm. Euh, di nuyu waa Sen Teranga mm-hmm. ak euh, auditeur Teranga Sen Teranga mm-hmm. euh, des compatriotes sénégalais parce que ça fait un moment j'ai pas eu à venir sur un plateau voilà donc nuyu yëpp di leen remercier yow ci invitation bi voilà alors ngay wàccee tuuti micro bi ñu gën la gën a gis bon alors c'est bon alors suñu première question mooy actualité bi li ko lëmbee mooy wàllu yoon balaa ñuy ñëw ci wàllu yoon président Bassirou Diomaye Faye euh, Ousmane Sonko ba ñu faloo ba léegi réforme yi ñu commencé teg wala sinon pion yi nga xamante ni ñu ngi koy commencé teg muy napp bi muy wàññi engrais bi euh, bëgg a doxal yoon ban appréciation nga ci am d'abord. waaw xanaa am espoir am yaakaar. Mhm. am euh, vraiment contenté. Mhm. parce que. président Diomaye fay ak le premier ministre Ousmane Sonko euh, ñu ak ñoom bokkoon nañu benn jamono. Mhm. nekk dans l'opposition mhm. euh, mu nekk naissance su réseaux sociaux yi. Mhm. ñu nekkoon ci ay mouvement à partir de la diaspora. doon rassembler doon fexe rassembler doomu Sénégal. autour de l'essentiel. Euh, muy ñi nga xam ne. Euh, yàlla dogal na mhm. bokkuñu woon ci débat public bi. Mhm. ndax euh, amuñu woon capacité mhm. yi. du fait euh, de barrière bi am. muy barrière bind bi. parce que réseaux sociaux yi ci bind la njëkkee. après ba audio ba. visuel bi ñëwee. maanaam audiovisuel. ñuy mën a wax en live. ci la ñu am chance su gis éclosion. am ñëpp mën a bokk. ci ci débat publique bi ku ci ne mën a wax sa xalaat. Mhm. et donc euh, loolu moo porté tey président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. Mhm. de même que le président kii euh, Ousmane Sonko. Mhm. Euh, le premier ministre. et donc ma kontaan loolu parce que dañoo nekk di matérialiser. une demande qui a été longtemps ignorée parce que demande bi ñu nekk ñu nekk ñoom tey di jéem a matérialiser du yomb mais demande boobu moo fi nekkoon 2012 parce que 2012 boo fàttalikoo. Mhm. Euh, dañoo fal xale. Mhm. un président jeune. par rapport ak benn vieille mhm. garde bu fi nekkoon. ay mag yu fi nekkoon. ñu tànn ki ci gën a jeune. ndax yaakaar bi ñu amoon que dañuy def rupture. comme malheureusement. ba ñu commencé dañoo commencé rek. nga gis euh, mu dellu ci vieille habitude yi jeune la mais dafa delluwaat jëli mag yi nga xam ni moom ñoom la population bi beddi woon mm-hmm. génne leen ci pouvoir bi mu delloowaat leen mm-hmm. euh, aujourd'hui waaw donc tey gis nañu ñoom euh, président Diomaye ak Ousmane Sonko ñu ngi essayer parce que boo xoolee seen gouvernement li ci jeunes yi ci ëpp mm-hmm. ndaw ñi xale yi mesures yi ñu jël tu sens que c'est des mesures pour alléger la souffrance des Sénégalais parce que jublu nañu ci mbay bi jublu nañu ci paysans yi et ça ça touche parce que ñi gën a vulnérable lañu ñu war a njëkk xettali parce que xettali la ñu sonn ñëpp sonn mais ñi ñu war a njëkk xettali mooy paysans yi te jublu nañ ci gis naa ni jublu nañu ci aussi xettali ñi nga xam ne euh, euh, maanaam ñu ngi jublu ci côté mm-hmm. suuf si mm-hmm. parce que dañoo noot askan wi jël li nga xam ni ñëpp ko bokk ñu mm-hmm. akimoo ko gis naa ñu jël nañ ci ay mesures. Mm-hmm. te di leen encourager ñu am sañ-sañ. ñu sañ-sañ. continuer li nga xam ni moo war. Mm-hmm. jubbanti. lu jubbadi li nga xam ni moo fi nekkoon. sonnal askan wi. ba tax ba ay jeunes. dee ci. ndax yaakaar. yaakaar ci ñoom. yaakaar boobu nañu fexe ba ngala bu mu tas. donc kontante euh, laa ci am. Mhm. ak fierté. ak et di leen encourager. Mhm. di leen wax ni que àndoon nañu ñoom. o mhm. début de ce combat. ba ko république bi soxla dañoo jàkkaarloog ñoom. mais ñoom tey république bi dafa soxla ñu jàppale leen. ndax li ñu tàmb li ñu sumba mhm. ñu mën ko yeggale ci seen sago te yeggale ko te mu doon njëriñu Sénégal mhm. tant que ñu ngi dox ci li nga xam ne mooy njëriñu Sénégal nu nous on sera de leur côté mhm. du duñu leen sànni du ñu leen xeex du ñu leen combattre injustement parce que deux mois en deux mois kenn mënut a lijjanti lu yàqu pendant de 1960 à nos jours nit mënu ko lijjanti en deux mois nañu waxante dëgg et loolu mooy sama position. Mhm, loolu mooy sa position mais est-ce que kon euh, bon jubbanti xam nga tur la boo xamante ni moo sa moo sa mouvement bi daanaka benn la xaw ma nag kan moo tooñ moromam kan moo jël jubbanti parce que boo xoolee ci li nga xamante ni euh, sa gis-gis ci doxalinu yoon moom mooy thème bi nga xamante ni moom lañ choisir le 28 mai. Mhm. bii di ñëw muy dialogue national bi donc euh, jubbanti yoon. dialogue national bi nga ko gisee. xam nga man euh, li ma neex ci changement bi yëpp mooy euh, ñaari gouvernement successif yi. Mm. et je le dis témoin yaa ngi fi seen slogan dañ koy jëlee ci man. d'accord gouvernement Macky Sall. Mm-hmm. en 2017. ba ndem si yàlla buur benn Abdallah di def déclaration de politique générale mm-hmm. dafa fekkoon may xeex di jàppale ku tudd Assane Diouf mm-hmm. ma comprendre li tax Assane di xeex. Mhm. ma jàpp ni que slogan wu xeex boobu c'était un Sénégal pour tous. Mhm. Sénégal bu ñëpp bokk. slogan boobu kenn mosu ko woon bind avant ma bind ko. Mhm. at boobu. ñu def ko slogan wu gouvernement bi. mais ils n'ont pas rendu à César. ce qui est à César mooy ñu reconnaître sax. Euh, toujours nit ki paternité intellectuelle euh, yenn idées yi wala yenn concept yi loolu suñu défaut la ñu nit ku mhm. mais surtout ñun Sénégal ñu ñëw ci eeru Diomaye mhm. ak Sonko <laughs> jubanti jubanti nekk sama mouvement mhm. ñoom xam na fu ñu ko tëggee ñu ngi ko tëggee ci groupe bu tuddu réhabilitons notre Sénégal maanaam nañu jubbanti suñu Sénégal ci tubaab ñu toog def brain euh, maanaam kii diide càmbar waay càmbar di waxtaan ñenn ñi ne noddanti mhm. ñenn nañu ne tëggaat ba ñu am ñu wax jubbanti mhm. ñu mujjee jël jubbanti def ko suñu turu mouvement mhm. yaa ngi dégg maanaam esprit wu suñu xeex bi kontaan naa que ñoom ci njalbeen lool suñu njalbeenu xeex la kontaan naa que tey ñu def ko comme thème central seen action mais reconnaissance bi ah mais mais mais mais mais ko bokk baatu ah. wolof la jubbanti mais man sama mouvement jubbanti la tudd samay page Facebook jubbanti la tudd mm-hmm. maa ko fi njëkk def ñoom mm-hmm. ñoom ñu ñoo àndoon mais ñoom Pastef la ñu wax mm-hmm. xam nga kenn waxu leen ni njaalin moom muu Pastef mais on leur accepte que concept de Pastef les patriotes dem na ba sax boo bokkul si ñoom nit ñi dañuy foog ni dootoo patriote jubbanti nag ñun dañoo tànn jubbanti Sénégal doon suñu euh, mouvement mhm. jub jubal jubanti mhm. nekk suñu euh, slogan suñu euh, cri de guerre donc man dama kontaan ñoom ñu jël ko jël ko li may ñaan yàlla rek mooy nañu fexe ba bu ñu tas yaakaar mhm. askan wi parce que moo boobu dafa foob te dafa am benn yaakaar bu ànd ak le le concept de jubanti Euh, muy ba tey la Sénégal bi nga xam ne moom la ñu bëgg. <laughs> Sénégal bi ñëpp bokk. Sénégal boo xam ne du amati ku ma am ndey dootul amati ku ma amul ndey. Sénégal boo xam ne mais d' nga ne amoon na ku ma am ndey ak ku ma amul ndey. ndax d' accord bien sûr man moo ma tax a génn Sénégal. <laughs> moo ma tax a génn Sénégal. Mm-hmm. Euh, euh, comme je le dis j'ai toujours été de l' opposition. mais ba Sénégal soxlaa ma dellu jàppale président Macky Sall dama dem jàppale ko parce que Sénégal. moo amoo ay regret si jàppale bi. non no non. finalité bi amoo ay regret par rapport. parce que ñoo non non décision bi juste laa jël. Mm-hmm. nga li tax tey jii. Mm-hmm. bu fekkul woon yenn saa yi nga am nañu jël rek sa doom. Mm-hmm. di nga am doom mu am mbébét. moom euh, projet. nga xool xam ni projet bi gënul ci moom mhm. nga tere ko ko wala nga xeex contre moom pour que mu bañ ko mën a def mhm. plus tard lay xam ni que euh, du ni da nga ko bañoon mhm. mais da nga gis da nga da nga séntu da ko gën a sori vision gën ko xam ni euh, lii mu bëgg a def ci saa si nekkul li gën ci moom je n'ai pas la prétention euh, nii maa gën a xam mais dama jàppoon ni jamono yi may jàppale président Macky Sall président Macky la moo doon représenté li gën ci Sénégal. Mhm. moment boobu en deux mille vingt et parce que moment boobu ñoom seen mbébét bu bu antu woon dañu doon am coup d'état wala benn kaw. ah bon ah. ah. mais nee nañ sonk sonk nee na am na mbir am na fu mu tolloon demoon na toll foo xamante ni su ma apaisé wu loon su ma waxuloon xale yi nañu yem dañuy dem déloger président Macky Sall. mais après est-ce que nekkul joué na ci rôle bu am solo moom Ousmane Sonko. Euh, Ousmane Sonko joué na ci rôle parce que. joué na certainement mais je damay am am naa un peu de réserve par rapport à ce que ma acquiescé ma ma ma validé loolu mhm. parce que gatsa gatsa moom moo ko génne concept gas gatsa mhm. gatsa te mu ngi ko génne presque un an après mhm. événement 2020 donc on était toujours dans la mouvance du gatsa gatsa événement 2021 yi. dafa continuer ba ba gats bi. mu yéegal ton bi mais dafa am face à lui. Mhm. ay sénégalais yu mel ni man. mais ñu am na ñu mel ni man. Mhm. ñoo xam ni duñu kenn ci état bi duñu lenn ci état bi. Mhm. mais dañoo bëgg Sénégal yàlla may ñuy wax ba ñu am quand même euh, ñu leen di déglu. xale yi di leen déglu nit ñi wóolu leen mhm. mu am la majorité silencieuse une partie mhm. boo xam ni dinañ leen déglu te xam nañu ne que lu ñuy wax lu ne day nekk loo xam ne dafa sincère te dafa nekk njëriñu Sénégal mhm. donc gatsa gatsa bi buñ ko ci toppoon bu fekkul woon ne am na ñu mel ni ñun ñu sacrifié wu jàkkarloo saagakat yi armé ñiy saaga armé ñiy calomnier ñiy diffamer pour te pour te faire parce que stratégie bi ñu tegoon ñoom dañu lay saaga xëbal la xoxatal la ba dootoo ñemee wax wax parce que da ngay refuser ñu lay saaga say mbokk bu ñu la saaga une fois deux fois sa famille day ñëw intervenir ne la dara jaru ko li seetal ci sa waajur seetal sa yaay xoolal sa yaay kenn mësu koo yeb et cetera ba nga mujjee noppi da nga mujjee noppi pour nga continuer il fallait mhm. que nga am le courage mhm. nga xam yow yaay kan saaga yi bañ la affecté mhm. nga mën a continuer faire face mhm. mais li li ma bëgg a laaj pour avancer un peu muy dialogue euh, national bi nga xamante le 28 la dañ ko jagleel wàllu yoon est-ce que jàpp nga ni justice sénégalaise bi tegul ci yoon jàpp naa ni man personnellement qu'il y a beaucoup de choses à refaire mhm. à parfaire la faute à qui donc euh, aux acteurs la faute aux lois loi yi nga xam ne dañu ko def président par exemple du nommé magistrat président warut a am benn emprise ci magistrat mhm. la justice dafa war a indépendante bañ a nekk sous la coupe de l'exécutif mhm. pouvoir yi dañ leen war a séparer mhm. am na moment nag malheureusement dans l'histoire de notre pays pouvoir yi voilà nañu fexe nag ba bu mu amati bu amati parce que moment yi ñu toll nii attention attention nga tiit ko en fait. waaw maa ngi commencé am euh, you know.